neew nañu leen ndeysaan moo doon maam ñi waaye ndono gi dafa am ci fu mu jaar ci sëriñ Sidi Moxtaar maamam mi ko yar tàggat ko mi jël lépp li gënoon ci moom jox ko ko tey mu fas yéene def émission ci chaise bu historique fa la ñuy yemee wax ci jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal gannaaw ba mu kàggu ba jox ko sëtam wii di sëriñ Saliou sëñ sëriñ Sidi Moxtaar jàmbaaruk sëriñ Touba bi sëñ Sidi Muxtaar sëtu ku tedd ki sëñ Sidi Muxtaar mi nga xamante ni moom la ñuy jooy ba léegi noppeeguñu di juróom-ñaareelu xalifa ak sëriñ Touba ci kaw suuf sëtam wee toog waaye toog ci kaw chaise boo xamante ni chaise bu chaise bi dama naan du chaise u neen ku yàgg ñëw ci ëtt bi ku yàgg ñëw ci kër gi yàgg fee fekk ku tedd ki ñu naan sëñ Sidi Muxtaar chaise bi sëriñ bi toog tey xam nga ko bu baax a baax a baax du ñàkk boo defee ay xuus tuuti ci internet bi di nga xam chaise bi li mu làmbool dëgg dëgg dëgg du émission bii lañ koy leeral li tax nag tey mu fas yéene cee toog fas yéene amal waxtaanu tey bi mooy ay révélation yu doy waar lañu war a waxtaanee tey Adji Sarr dafa génn mel ni ku déggatul olof di wax di saboote sénégalais di kukkali sëriñ bi dina ci am ay révélation yu am solo yum ciy def waaye sëñ bi dama ne woon damay wax waxtaan ak moom ci xam-xam waaye waxtaan ak moom ci abbé bi gannaaw ba mu génnee mel ni ku tontu Ousmane Sonko te Ousmane Sonko itam waxam daf ko générali généraliser woon abbé bi gannaaw ba mu génnee tontu na Ousmane Sonko waaye tontu na ba laal lu mu warul woon a laal daan ci waxtaan ak Mbàkke Balla fi mu bëgg ñu tëjee ko rek Mbàkke mooy ci làmb bëri na mbër yoo xamante ni faw ñu ñëw sukk seen bëti oom ci moom jéggalu ko ndax ba meree ba am lu mu wax bëri na mbër yoo xamante ne ci lañ gëj amee ndam du ma tudd tur nag balaa boobu dañ koy bàyyi Mbacke Balla Serigne Saliou Mbacke surtout Serigne Sidi Muxtaar bi mu nuyu mbokk internet koy seetaan Mbacke Balla bismillah a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sante yàlla mi nga xam ne mooy kilifa ak ñëpp di ko dellu sant moom mi nga xam ne moo taw féexal ñëpp di sant itam suñu kilifay diine yi di sant itam suñu kilifay aada yi di sant di ñaanal suñu sang Seexul Xaddim moom mi nga xam ne tey bu ñu nee première safar ñëpp Sénégal gépp xelam si moom lay dem kon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal képp koo xam ne itam yaa ngi ñuy gis wala nga ñuy dégg wala ngay wax nga nekk ñi nga xam ne yow lañu jëflante di baalu àq itam képp koo xam ne jëflante na jëflante yow ñu ngi baal ni bis bi nga xam ne mooy suñu bis ñu ngi lay baal àq di la baalu àq bisimilah Balla jërëjëf waaye balaa ñëw tàmbali ci émission bi. Eh, sëñ Sidi Muxtaar sa maam la bëri nay sët waaye li taxoon nga doon féeteem la la ñu bëgg nga waxtaanee ñu ko tey ndax doon nga ci moom xam-xam doon nga ci moom yar doon nga ci moom yërmande doon nga ci moom ba mu jël lu gënoon a cher ci moom muy këggu gi jox la te ba mu fi jógee itam mbiram yu bëri dañ koo bàyyeeg yow Mbàkke la lan moo tax loolu. waaw lamin dafa am loo xam ne euh, du ko bëgg am ko mm-hmm. te ay mbiri mbiri kilifa. du caagi ni ñëpp ñoo ko mën a ñoo ko mën a am te mbir mi sëriñ bi mooy xool ku ko neex mu jox la ko xool ga nag nekkutu si si juddu selam nekk mooy tarbiye ko ak nekk ci la nga xam ne moom la bëgg ndax kilifa lu ko waay mënti waxal ak lu ko waay mënti defal képp koo xam ne suñu borom suturaal na la am bokk nga ci ña am ngërëmal su amee ñetti at bu neexee yàlla dinga gis loola ñun nag suñ borom dafa toll gudd yi ñu toll nii lépp loo xam ne sëñ Baara mi ngi koy séddale man sëñ Saliou damaa bokk si ñi koy séddale xaw ma dégg nga ko dégg bokk si ñuy séddale du bàkku nag ndax bu dee danga am da nekk xale ñu yóbbu la si daara ji nga jàngi nga tarbiya tarbiya mooy defar ñu tàggal la defar defar la ba ku la gis defaru ku la dégg defaru koo dégg ay mbiram mu defaru kon loolu ak cant la ak delloo njukkal sëriñ bi ndax ñun eh, bi ñu tollee ci defar di ci defaru ñu yóbbu ñu daara ja xam naa ne su ma nee woon man dama naan dem naa ba dundee mbett wal mooy laaxu sanqal boo xam ne dañuy jël dugub ji rek gar ko noonu ngay lekk ay sax di fay ca kawam kon loola kuñ defarut wala ku nekkul fa ñuy defar li ma lay wax ni képp koo xam ne nekkoon nga njurul bu ñu la waxee luy mbettewal xam nga luy mbettewal kon ñun jamono jooju la ñu defar si ginnaaw bi ñu defaree nag si lañ ñu jël si la si lañ dem ba jàng ba wattu alxuraan ba man ko si lañ bind sa si lañ bokk si sët sëñ Seex Sëriñ Muxtaar yi nga xam ne ñoo ko njëkk yóddu kaamil keroog bi ñu ko yóddu kaamil kontaan ku mu kontaan moo tax lu baree bari mu jox ñu ko yëkkate ak kàggu jox ñu kàggu googu nag lu baree baree bari si la nekk téere bii ma takk képp koo xam ne xam nga vidéo sëñ Sëriñ Muxtaar yu njëkk ya xàmmee nga ko téere bii waaw koo xam ne xam nga gis gis nga vidéo sëñ Sëriñ Muxtaar yu njëkk ya xàmmee nga ko téere bii te lii lépp ci kàggu la kon man sëñ Saliou nekkuma nit koo xam ne damay faral di wax nii rek. wala lii yaa ngi ko génn ci premier safar bi tey barkeeloo ko. premier safar bi maanaam même yére bii ma sol nii. perkaal la dafa am lu baree bari lu muy wënnu. waaw man euh, ndéem li may roy sëriñ bi ci kaw. ndax damay bañ dafa am loo xam ne des koy moytu. bëriwul waaye dafa am bis xam ne bu jotee damay damay fësal. ak ak ak cant ak barkeelu ci moom lépp loo xam ne jógee ci moom rek damay damay bëgg di ko wane mm-hmm. murid yëpp di si jariñu murid yëpp di si am ak pas-pas murid yëpp seen xol di si sedd mais dafa am niveau boo xamante ni boo fa tollatee cheikh bi dañ naan doo seet da ngay toog rawaan yi di ñëw di la jege ngay wax ak nit ki loolu ban dimension la wala nit ki lu koy may loolu ba seet loo ci wax nit ki da ciy teg bëtam waaw alaaji Lamine seet dafa nekk loo xam ne man la may faral di wax nee naa leen seet bu ñu doon xool ñett ñi ko dàq senegal man Serigne Saliou si ñett ñooño kenn mënuma si mënuma see génne. du ma nag maa ko dàq Sénégal yàgg daa ko wax ndax su ma nee maa ko dàq Sénégal day mel na may bàkku te bàkku suñu borom rek ko yeyoo ndax moom rek mooy moom moom jaam ñi moo bind jaam ñi. te lépp lu nekk si jaam yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko def. kon man du ma bàkku waaye nag sañ na maa ndamu sañ na maa cant itam. cant googu nag ak ndama googu ci biir yoon nag ngir njukk delloo njukkal suñu borom subhanahu wa taala ci li ma defal mooy waral ma may may wax ne du ma ne maa ko dàq Sénégal waaye ñett ñu ko dàq Sénégal man Serigne Saliou bokk naa sax te ginnaaw ba ñu ba ñu woowee jox ñu sa turu waajur wu góor ak wu jigéen ak ñaataat nga am ñun daan la wax lépp lu nekk ci yow muy lu njëkk ak lu mujj lu ñëw ak lu ñëwagul lu paase ak li nekk sa kanam maanaam bul jom ma wax ne sëñ bi li nga wax dëgg te war naa ko ci alxuraan ne nit suma woo ma seetal ko te néew ma sëñ bi li nga wax dëgg la loolu moom taraanga jooju moom suñ borom defal na ma ko bokkuma ak ñi nga xam ne man bala maa seetal nit damay ay mbiram xool ak ruuxam xool biddiwam xool lan la ba mu wóor ci man ma doog laa seetal am na ñoo xam ne tamit dañ may jox seet mu am ñetti fan ci man am na ñoo xam ne may jox seet mu am une semaine ci man ndax ci du caagi ne nit ñëpp ñoo bokk martaba ndax ni baaraam yi wutee noonu la doomu aadama yi wuutee kon mënoo jël benn numéro rek bëgg koo takkal ñëpp te nit ki bu weesoo bu bàyyee ñëpp jàpp la da war a bàyyi ñëpp jàpp ko lépp la mu bëgg nga defal ko ko lu mu maam bul bëgg lu ko neex moom ba nga gaaw a def la mu ba nga gaaw a def la mu bëgg da ngay def da ngay def rek la nga xam ne moo tax mu woo la waaw. Mbacke Balla damay delluwaat ci kaggu gi dëgg la dina metti dina jafe nga waxtaan ci li sa maam defal rawatina bu safar gi jóge waaye kaggu gi nga xamante ni tey foo yegg. kaggu ge fas gi nag mooy kapiteenu gaal gi bu ñu nee gaal gi capitaine am na ci fas gi sëñ sëñ Sidi Moxtaar tax mu jox la kaggu gi fas googu laa bëgg ñu njëkkee ko ci tey. fas gi mi ngi nii yaakaar naa ko xam sëriñ Saliou ak sëriñ Sidi Moxtaar ak uh, ay mbiram dëgg-dëgg xame nga sëriñ Saliou ak fas gi fas gi nag li muy saafara mooy képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kàttan moo xam mu nekk awra wu lax awra wu nooy koo xam ne boo ci rek soxla ngay gaaw a àgg ak lépp luy jafe-jafe néew kàttan soo takkee fas gi ñetti waxtu lépp luy jafe-jafe néew kàttan di nga ko di nga di nga ci yow Lamine am na ñoo xam ne dañuy foyee seen loxo dañuy foyee seen bopp ba néew kàttan fekk leen sax am na ñoo xam ne dañuy sëy sëy gu bari ba néew kàttan fekk leen sax am na ñoo xam ne dañuy lekk ay noob noob yu bari ba néew kàttan fekk leen sa am na ñoo xam ne hémorroïde mooy tax ñu néew kàttan mm-hmm. am na ñoo xam ne jabet mooy tax ñu néew kàttan mm-hmm. am na ñoo xam ne xala mooy tax ñu new kàttan mm-hmm. yooyu yëpp nag bu suñu borom dogalee kooko déggante ak Serigne mu Mbacké lépp luy jafe-jafe néew kàttan ak ndiggu luy métti ak tànk yu métti di nga da ngay tàggoog moom ndax man la ma yàgg wax ñett nit ñu bokkul bu ñëwee ne ma Serigne Saliou li ñu waxoon gisuñu ko wan naa ko ci alxuraan ma bàyyi joxe fas gi wallahi ñetti nit yu bokkul bu nee la takk nañu la ñu joxoon la ñu waxoon ci fas gi ko wan naa ma bàyyi joxe fas te képp ku ma si woo naa la wax teg la saw yoon ba lépp luy jafe-jafe néew kàttan ñaari fan ñetti fan nga tàggoog lépp luy jafe-jafe néew kattan te bu dee fas bu dee ndax néew kattan li koy faj ñi mi ngi tàmbee si nit la mu ñuy wax mm-hmm. ak li ñuy seetal nit ki mm-hmm. ndax am na si ñoo xam ne bala ñu leen a fajal néew kattan dañu leen seetal bu baax a baax doog leen a fajal néew kattan ndax am na si ñoo xam ne mënoo leen a fajal néew kattan mukk te seetalu leen gis ñoo xam ne dañuy war lu ma téeméeri sëriñ te duñu am jafe dañu am saafara ñun buñ la buñ la waxee la nga yor lépp si saafara lépp tee ko ñetti fan dañ la may lu mu mënti doon ci yow nga tàggoog néew kattan te fas gi boo ko takkee ñetti waxtu nga tàggoog néew kattan bu dee da nga sëy rek bëgg mën ngaa sëy sëy sëy ba doyal te sa deret dafa tàng fekk tekkoo ko doo ko àgg wallaahi mais dañ naa xamee alquran nga mën ko mokkal ko jàng ko bind ko jox ko sa maam ba saafara yu mu la jox lépp ci alquran la ne la nit ki jafe-jafe bu mënti am boo delloo ci alquran fekk fa saafara si ngay ubbi nit ci alxuraan ubbi ko ba mu sut ay maasam diggante weer ren ak déwén wala si diggante sax ñaari weer. waaw ñun Lamine dañuy jëfand dañuy jëflante dañuy jëfandikoo ñaari xam-xam mooy buñ naan xam-xamu yu mooy xam bu ñuul waaye rek dañ ciy def ñun lu baax. am na boo xam ne tamit dañ naan xam-xamu nuuraan yu léegi nag eh, nit ki bu mu ñu woowee ñun dañ koy xool dañ koy si dañ koy tàmbalee ñaanal buñ ko tàmbalee ñaanal bu ñu demee benn fan wala ñaari fan. danañ xam wan yoon la ñuy jaar pour saafaray mbiram te bu ñu jëfalanteeg moom bu dee bu ñu jëfalanteeg moom fukki fan ak ñeent wan naa ko ci alxuraan lépp loo xam ne jafe-jafe la loo xam ne wax nañu ko ñu dégg ko Lamine da ngay tàggoog moom waaw. bu ci wàllum ubbeeku. ubbeeku Lamine am na càngat goo xam ne bu ñu la ko joxee bu ñu la seetalee ba nopp bu ñu la joxee càngat googu fukki fan ak ñeent jàpp ñeent fukki guddi boo ñàkkoon ba gën a ñàkk ci ki ñu gën a ñàkk mhm. soo càngatee càngat gi. juróom-ñaari fan say bunt dina ubbeeku ba nga yëg ko néew ñu nag kenn boo sangoo sang yi boo sangoo cangat yi nga yor xaalis waxuñu ko kenn bu néew kenn boo sangoo sangat yi boo xëyee suba afek ay walisu xaalis ñun soppiwuñu xaalis yoruñu kalpe masik yoruñu dara liñ yor mooy ay cangati ubbeeku nit ki lu mu mënti liggéey ak lu mu mënti def ak lu mu mënti yootu bu ñu jëflanteeg moom balaa man ñeent fukk guddi man sëriñ Saliou di teg sa la nga waxoon boo si tegul lépp loo joxoon ñu de ñu delloo ko waaw lépp loo ñu jox si weexal ñun ñu delloo la ko. dañoo gis nga yoroon fi loo xamante ni sax essayé nañu ko ba mu leer ci bëtu nit ñi muy euh, nomb ak tawféex nomb ak tawféex nga dem ba xam ni ñii boo leen koy jox war naa am pettaaw ñii warta am pettaaw nga moderniser ko te bii ku ko gis xam ne li nomba luñ takk la ba noppi. waaw nomba gi nomb ak tawféex gi la am na si yoo xam ne day am juróom-ñaari pettaaw waaye bii nii. mooy yi ma njëkk a joxe moom du am pitaaw am na si yoo xam ne day am ñaari pitaaw mhm. Lamine ndoom ba si li muy saafara mooy euh, bu ñëpp maase woon ngir bëgg laa sàkkal pexe mhm. kenn mënta fexe ba nga ba sàkkal la pexe bu neexee yàlla bu ñëpp maase woon bëgg laa toroxal mënu laa toroxal juróom-ñaari gaw lay am Lamine ndoom ba gi day saafara tulu paaka ak tulu fital boo ko yoree tulu paaka la ak tulu fital saafara yooyu lay def ñaareel ba tamit mooy dafa am kaaraange ñetteel ba mooy rawatina suñ mbokki moodu moodu yi nga xam ne dañoo nekk Europe ngir di jaay ay forot wala yu demee ni ko noona soo takkee ndomba gi da ngay am juuwaloo sa diggante yow ak alkaati yi ndax ndax Europe ni ni Sénégal doxee Europe doxewul noona mm-hmm. li boo ko takkee lañ lay wax mooy da nekk ba jóge fa ñu la policier yi fii lañ jógee léegi wala nga ñëw ba de wala nga toog fa ñu ne la police nga ñëw ba dem ñu ne la policier yi dangaa dem rek policier yi egsi la soo ko takkee nag lépp loo xam ne wax nañ la ko si soo ko takkee balaa man ñetti waxtu yow sa jëm bopp di am yëg-yëg googu sa yar si saw yaram. feebar faju moom nag dañuy tëjee wax dëgg yàlla mbàkki bàlla li tax ma bëgg ñu tëjee faju mooy dañ ni ëtt bi ku fi juddoo rek bu tubbee siif bu tubbee suuf jox la bu ko ëffee boo ci bu ëffee jox la boo ci boo boo ko gëmee boo ko boo ko jëfandikoo am résultat te faj bokk na ci loo xamante ni moom nga njëkk a def daanaka faj néew kàttan hémorroïde ndoxum siti faj en général. gis nga lawin émouride euh, ak euh, ndoxum siti moo gën a garaaw sida ak feebar yi ngay dégg lamin euh, ndoxum siti mën naa dem ba gumbaloo nit ndoxum siti mën naa dem nit ki yaakaar dañ koo liggéey gis nga ndoxum siti bu la dalee dëgg-dëgg doo nekk si biir nit ñi doo bëgg a toog ci nit ñi lu waaye wax nga mer mën na laa yóbbu si néew kàttan mën na laa yóbbu si bët yu xasan mën ngaa dem man ngaa dem ba sax lekk néew mën na laa jox ballonnement mën naa bu àggee foofu nag mooy waral ngay seere seere gi bu yàggee ci yow mooy waral ngay émorite émorite bi am na boo xam day génn am na boo xam day dugg soo demee toilette boo boo boo dee defaru day mel day saf sàpp day génnaat yooyu yëpp lamin bu suñ borom dogalee nit ki ñëw ci ñun ngir am feebar yooya da ngay tàggoog moom ci buñ la fajee ndax ñun euh, dañuy wax te li ñuy wax suñu diggante ak suñu borom lañ ko lañ ko lañ ko lañ koy wax ndax lii ñu sol perkaal la te bis dina ñëw ñu lëmas ñu si suul lañ ci bàmmeel te loolu suñ loolu suñ jof duñu fa fekk te lépp luñ lekk ci alalu doomu aadama te léwuñu ala kulli xaal daan ko fay bis penc te loolu lépp nag wax nit ku nekk war ngay bàyyi xel foo toll ci loola moo tax ñun lépp lu ñuy wax ak nit ki day nekk lu leer naññ loo xam ne dara du ko dindi waaw mais sëñ lu ñu jaaxal mooy dañoo xëy gis vidéo Adji Sarr yi mu mel ni sax dama naan day saboté Sénégal nee na dafa jot ab livraison lu mu commandé ñu livreel ko mu gis ñu bind ci Sweet Beauté mu def ci ab vidéo wax lu ko neex moom tamit mel na ni daal ma nga fa mu nekk daal ma ngi ci olala am di saboté sénégalais. waaw kooku ñu naan Adji Sarr euh, sénégalais ñoo war a xam ndax dafa bëgg a def boppam star te du star man damaa jàpp ne am na loo xam ne euh, as gor du ko def. am na loo xam ne nit ku yiw du ko def am na loo xam ne nit ku baax du ko def ndax euh, am réew boo fa nekkee ba taal réew ma. nit ñëpp am lu leen naqari nga dem ba loola tàmbali sedd ñëpp tàmbale laa fàtte la la war mooy nga gën góor góorgóorlu baalu ak sénégalais yi mm-hmm. tuub la nga weesu ndax bis lii muy def nii dañ koy fay rek mm-hmm. ku ma tegal kaay ma waat ne dañ koy jox xaalis di ko def loo rek comme que nag nit ko yorut nguur yorut dara mm-hmm. nga munta sànq sàkkantumaak bu yor bu ko yàlla dénk koy nguur aji saar kuy kuy mbokkam wala ku muy dégg wala ku koy dégg na ko wax yii mu jëm ak yii ñu koy dugal nii hmm. na sa génn ndax kat am na loo xam ne war naa ci alxuraan bu ko teg bu teggul tànkam balaa mat 6 mois ñett yi di ko dégg di nga dégg aji dof na wala faatu na te barke seexul xaddim laa la waatal aji saar bu dakkalul lii balaa am balaa balaa am ñeent fukk guddi man maa la man maa wax ne buñ ko buñ ko suulut am na loo xam ne duma ko wax sax waaw ndax euh, am na loo xam ne duñ ko nangu mukk na loo xam ne ko nangu mukk te ñun dafa am loo xam ne lu ne lañu jaral muy Sénégal muy jàmmi Sénégal mm-hmm. am na la la woon woon na la na lii muy def na ko dakkal mm-hmm. te ñaareel ba tamit mooy li may wax mooy euh, dama koy wax président Sonko di ko wax président Diomaye mm-hmm. di ko wax itam sama kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Touba euh, di wax ne seenu benn seen benn taalibe boo xam ne Euh, lu ne def ne ko ci Touba. Euh, amul kilifa gu nekk Touba. te lekkoo ñaqam. amul kilifa gu nekk Touba. te woo ko wax ko soxla. amul kilifa gu nekk Touba. te amoo tudd yóbbu fa alalam. te war naa ci alxuraan ne am na si ñoo xam ne. seeni waajur sax laan jëfan jëfalanteel muy ñun ñii muy kuñ ñaan Mbay Ture Mbay Ture ku nekk Touba boo ko déggul boo ko xamul dégg nga ko man nag yàlla rek laa ko seedeel musumaa defal dara musumaa may dara barke bi alquran waaye jëf ju mu jëf sëriñ si yoon sëñ Tuubaa wi moo tax may wax wax ji si moom ndax bisu safar wi daan na si jëf jëf jooju rëy rëy natt nag da koo dal natt bi ko dal mooy eh, dafa am ñoo xam ne ay defkati ñaawteef lañ ñoo ko bëgg a jaay doole ba sànq alalam may ñaan may ñaan kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Tuubaa képp koo xam ne sa loxo jot na wala képp koo xam ne boo waxee dana dégg nga jóg taxaw jàppale Mbaye Touré ndax ku ko jàppale jàppale nga sëñ Tuubaa ku ko seetaan seetaan nga sëñ Tuubaa loolu lan laa amoon ci li may wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Mbacke Balla balaa ñu tëj émission bi daa nga wax daan nga faral di ñu waxtaanal waxtaan yu am solo ci politique waaye tey abbé bi laa bëgg abbé bi nga xamante ni def na génn dafa génn tontu mel na ni moom daal premier ministre mais Ousmane Sonko la tont dafa mel dafa am loo xam ne daf ko dencaloon Ousmane Sonko wala ñoom ñaar dañoo am ay compte yu ñu a rendre. waaw abbé bi maanaam dafa xamul boppam man du ma du ma raay raayal xamul boppam te ku ñàkk teggin la te ku ñàkk euh, ku ñàkk gis-gis la te ku xamul ni Sénégal doxe la. gis nga dafa am loo xam am ndab bu ñu la si xajalee da ngay xam sa bopp ñoom minorité lañ senegal te sénégalais dafa nekk nit ñoo xam ne nit ñu baax lañ nit ñu yaru lañ nit ñu am dal lañ waaye ñoom ñi nga xam ne moom lañ moom ñoom ñoom ñoom ñoo ñu di abbé yi bu ñu leen fayoon seen seen bor kon yaakaar naa du tala sax nekk fii di wax am loo xam ne nag président Ousmane moo war a xam aw tax aw doxinam moom ñoom la yàlla dénk réew mi ay jullit lañ ay doomi jullit lañ te quatre-vingt te ab dëkk lu waaye dëkk ba la koy doxal mooy majorité bi lañ doon lañ bëgg moom la waa dëkk ba di dox. ñoom nag leen ne mën a am état wu Sénégal ñu leen jox licence ñoo jox licence seen école yi nañ respecté li leen li état Sénégal wax école yi doxe ko suñ ko mënut nañ nungu seen i licence wala ñu xool seen seen école def ko école publique jël publique publique publique élèves Sénégal jàngal ñëpp ñu bokk yam ndax nit ku nekk ak foo mënta jàngee la nga bëgg ak la nga bëgg dund mën nga koo dund ndax boo nee boo boo nee suñu école kuy muur du fa dugg loolu ay caaxaanda ay kàcc la lu nekkul dëgg la abb bii nag li war a def mooy kilifa diine yi ñoo war a jóg taxaw jàppale Ousmane sonk jàppale président Diomaye Faye ndax ñun ñoo fi ëpp te ñoom ñoom ñii di wax tey naan ay muuroog ñàkk muuro bi Macky Sall toroxal nit ñi ñoom waxuñ moom génnul wax bi nit ñi dee génnul wax kon bu mu bàyyi ba tey di fontoo nit ñi di yeb nit ñàkk yar ñàkk teggin taxaw di tontu ay Ousmane Sonko am na loo xam ne bu ko moytu bu ko bàyyiwul nag incha allah rabbi ñun ñi nga xam ne ñun yi daara lañ daara tax ñoo jóg ñun ñoo jëflanteeg moom si saayir ak ci baatin wallaahi ndax am na loo xam ne ak reewande la ak ñàkk teggin ak ñàkk dal loolu laa amoon ci la may wax ci moom jërëjëf Mbacke balaa ñoo tëj rek eh, nga ñu mbër mu musaana tàngal sa xol wala mu wax lu tegginewul réccu na ko te dañoo jëm ci làmb diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy moom mooy Franc Franc booyu Modou Lo la te Modou Lo mu mujjee daan Ama Baldé te seen làmb ja am na looñ ci waxoon waaw la ma leen waxoon fee laa leen waxaat fii Ama Baldé yaakaar ne làmb ji dina yomb ci moom waaye dina bokk ci léegi yi gën a jafe si moom te alxo waat naa ko fii te wax naa ko fii su amul ñaani wér-wér dina am mbetteel wallaahi te waxoon naa ko ci Modou te naa ko waxaat fii vidéo yaa ngi fi na dem seetaane ko. Modou dafa jox Franc secret wala Modou dafa am fu mu dugal Franc wala lu xew. Lamine tey da nga maa fekk ma nekk ci àll. te la ma xam dafa bari la ma war a wax dafa bari. te yëf yi fi mu toll nii may wax yow. dafa nekk sëriñ Saliou. ndax li may wax fii di may wax génn ma fenn biir Tuubaa laa koy waxee. te bëriwut ñoo xam ne ñeme nañoo tëdd fanaan ci dëkku sëriñ Tuubaa bi di wax yenn yi man li may wax sëriñ bi laa koy seddal te sëriñ bi xam na li may wax ne xam na li may wax man la ma war a def maa nga sax la war maa nga ca waaye li may bëgg wax mooy mbokki Ama Baldé bu ñu jugul dina am lu doy waar dina dinañ am lu doy waar lu leen bett te may wax tamit ne euh, accident yi nga xam ne màggal gi ñu jëm mm-hmm. fii ak safar yi kilifa yi am na yoon woo xam ne bu ñu si jaarut dina am ay ay bakkan ay bakkan yu bare bare baree bare yu rot si tali bi te am na yoo xam bu ñu si jaarut balaa nawet bee jeex balaa weer wee dee di nga dégg ay bakkan yu baree baree bare yu rot mbàkki bal la dimbaluñ ci sarax loo ñu jox ñu jël waaw yooyu moom euh, sarax yooyu moom dafa am sarax yoo xam ne gàllankooru Sénégal lañ bëgg waaye ñi Sénégal ñor buñ déggante ak ñoom danañ leen teg sa yoon wa kon eh, dañ laa fekk ci xaal wax nga ko léegi boobu ba léegi ñu ngi bëgg a toog def jotaay bi waaye yéeg beeg wàcc bi dem ak dikk bi Mbacke Balla kon looy tàggatoo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu